que élection yi di ñëw ñu mën ko organiser ñu mën ci taxaw pour mën a faire face au-delà de F24 oui ñu def yeneen pôle nga bëgg wax wala ñu gën ko renforcer wala lan nga bëgg a expliquer parce que d'autant plus que F24 du rek ay politiciens ñoo ci nekk ñeneen ñi ngi ci. Mhm. xëy na am nañ peut-être yeneen euh, gis-gis. Mhm. ci ci ci ci euh, ci kuréel googu. Mhm. mais lan nga ciy proposer c'est-à-dire pour que euh, ñu renforcer ko wala ñu créer d'autres pour mën a sot soto maanaam wër ndombo. Euh, xam nga li li li wóor mooy euh, gis nga élection yi ñu jëm dafa am situation boo xam ne faw ñu bàyyi ci xel mooy dafa am ñu nekkoon ci opposition bi tey jii làng féete ak Benno Bokk Yaakaar parce que damay wax ne boo demee assemblée nationale booy vote loi ànd ak Benno boo demee mairie dakaar booy voté loi ànd ak Benno PDS ngay gaar waale non ma ne Euh, wax ju yegg dafa ko moom. waaw mais non no damay non xam nga fii moom dañuy faram fàcce. mais <laughs> moo tax bu ma ne wax ju wax ju yegg non bu fekkee ñoom ngay gaar waale nga demee ñoom ngay gaar waale. dama ne. non dama ne ndax ndax PD waa PDS ngay gaar waale ne la. waaw euh, ak nga tontu moom si bu dee ñoom ngay gaar waale nga ma waaw dafa ah, ah, man du ma gaar waale. kon waxal mu leer li ngay wax. li ma wax dafa leer. waaw non leerul c'est-à-dire que am na am na loo xam ne. waaw euh, boo ko junjee sénégalais yi comprendre non mais pourquoi nga koy non dama ne li ma wax. te nga bëgg mu leer ak ñoom ak opposition bi dañoo xeex. dem assemblée nationale. sànq ma wax la ko ne la dañu indi duteloo Macky Sall. Mhm. réduire majorité am à l' assemblée nationale. tey ji opposition boobu. am na ci ñoo xam ne ak Benno Bokk Yaakaar bu ñuy voté ñooy àndandoo bokk la ñuy voté. Mhm. boo demee mairie Dakar bu ñuy voté ñooy àndandoo bokk la ñuy voté. opposition nii la da ngay ànd ak Macky Sall wala nga nekk ci opposition. d'accord donc ci ñun ca nga nekk ci digg bi mënta nekk. d'accord léegi ñooñu. ñooñu non may may ma rek may ma ma yeggale suma raisonnement may ma ma yeggale suma raisonnement. tey suñu demoon ba deuxième tour am réew mi taxawu Sénégal ak parti su parti démocratique sénégalais ak Benno duñu ñu coaliser nga foog. pour jàkkaarlook ñi nga xam ne dañ ne tey jii ñoom ay antisystème lañu moo tax ma ne il urge de s'organiser pour que bu ñu yeggee ci situation boobu ñu mën a jàkkaarloo ak ñoom. d'accord euh, Bougane tout à dafa am baatu olof boo ma wax. nga ni mu mbubb mi nga sol mu xat la mbaa mu nàngam la bu solal sa morom mhm. du loolu nga ma wax noonu. Mhm. mooy bi ñuy wax. Mhm. alors mais jàpp nga ni yow li ngay wax nii jëmale ko Khalifa Sall ak ñoom Barthélémy Diaz. est-ce que jàpp nga ni loolu itam sa cër la. maanaam li ngay wax nii di am dut ci seen franchise ci seen opposition ba di ko wax nii di ko wax aussi ci ci waa parti démocratique Sénégal est-ce que jàpp nga ni loolu itam. non moi je suis je suis sur des constats. c'est un constat. li ma wax bu fekkee amul da naan ma Bougane li nga wax amul dama ne opposition bi xeex Benno Bokk Yaakaar ba joxuñu ko majorité confortable à l'Assemblée nationale. ñi dem assemblée nationale ànd ak bennoo di voter ay loi trahir nañu peuple bi leen jox confiance c'est ça la réalité. mais Bougane bi ñu nelee bi ngay bi ngay gedd nga baal ma maa ngi jégalu ci baat bi yeewi mhm. ci coow loolu. Mhm. nga xam ni moo amoon ñëpp fekke ko. Mhm. mais pourtant am na ñu jox njort ne. mais loxo état dafa nekkoon ci sa ginnaaw. waaw moom mooy tey ñi dem ci état mooy tey ñi ruutaloog état ok. non loolu bu la neexee ñi ko doon junj ak di ko wax mooy ruutaloog état tey dama la bu dawar yàggee rek gawar feeñ man géey maam góor mujjee liggéey arama ca ñoom resoo dama ca septième gaar gor piir barke xaadimul Mustafa Macky Sall lenn rek laa mën a seq ak moom 2024 ñu def passation de service li mu fi bàyyi ci lu baax ma utiliser ko pour Sénégal ah. li mu fi bàyyi ci njariñ ma utiliser ko pour les sénégalais ñi am xam-xam am compétence ci liggéey Sénégal fu waay nekk ma jëli ko mu ñëw liggéey ak Sénégal. ngor gi ngay wax dafa nekkul ci ñi nga jàkkaarloo. non man man sama bopp sama bopp laa xam non sa bopp man man sama bopp laa xam. man sama bopp laa xam man sama bopp laa wax da nga dellu si waat ci yeew wi ma ne la la ma fa gisoon. man ba ne ay dëmm lañu. non dama ne mais dëmmante laa gis du feeñ na. bu bu bu bu bu dawal yàggee gawar feeñ la ma waxoon feeñ na walla feeñul la ma waxoon man feeñ na wala feeñul. non mais feeñ na ci lan pap système pap système bi feeñ na ci lan pap la ma waxoon. mais feeñ na ci lan la ma waxoon ci doxalin man man makki Sall aw problème personnel ak Macky Sall. makki Sall du nitam moo ma intéressé doxalin bi muy doxal laa d'accordul moo tax. ma jàkkaarloo ak moom su ma gisee ay nit yu jotagul ci nguur di doxale comme moom ma jëflante comme ni ma jëflante ak moom man ragaluma wéet de Pape ragaluma benn yoon wéet parce que yoonu dëgg boo ci nekkee mën nga caa wéet donc ragaluma wéet li ma gëm mooy façon bi ñuy defee politique ci njublang façon bi ñuy defee politique ci tappale façon bi ñu lay wax naan la diw homme d'état la homme d'état mooy kuy sàcc homme d'état mooy ku xam kuy sàcc noppi secret d'état état warta am secret bu ñuy nëbb askan façon ngi politique boobu la sénégalais yi ne bëggatuñu ko idéal boobu sénégalais yi di yuutu dafa am jeunesse bu koy incarner jeunesse boobu di ko incarner wax naa ko ci ay interview yu bari éliminer Bougane euh, écarter Sonko du tax dynamique bii sénégalais yi nekk ñu wàcc ko parce que li ñu gëm mooy lii fi nekk daf fi war a jóg donc bu ñu écarté ñi nga xam ne ñooy incarné anti système boobu dana am ñeneen ñu judd file ki weer jàkkaarloo ak ñoom ñi nga xam ne ñoo nërmeel Sénégal ñoo indi Sénégal ci situation bii mu nekk. Mmh. d'accord dafa am baat boo wax léegi Bougane mooy ragaloo wéetaay loolu man mën naa ko dégg parce man dama jàpp ni ku wéet ci mouvement gëm sa bopp nga. Mhm. parce que su weesoo yow sa jëmm je pense vraiment doon nañ xaar ci mouvement bi animation bu fort mhm. bu am doole. Mhm. muy ci ndaw ñi muy ci jigéen ñi muy ci leneen ak leneen ñu leen di dégg di leen gis vraiment mu jox yaakaar askan wi. que jàpp ni ñii maanaam bu ñu eggee ci élection dinañ am mbooloo moo xam ne dinañ mën a taxaw mën leen a voter ñu mën a jël réew mi. loo tuddee mbooloo. Ah, mais mooy li nga xam ni. benn élection mooy non mooy mooy li ñuy gis bu son ko jógee ñu gis ko. loolu dañ ko loolu lañ loolu de tuddee mbooloo. Euh, Pape asamaan saa ngi nii nga jàkkaarloog ne gisuma ko loolu kenn mënu ci dara ay mobilisation gëm sa bopp je crois que ñiy suivre gëm sa bopp ñu ngi gis ay mobilisation gëm sa bopp. c'est des milliers des dizaines de milliers de personnes. pap terrain du fen et ñun ci terrain bi la ñu nekk te li ñuy liggéey ci terrain bi non kenn kenn ci ñu ñu jàkkaar lool mënuñu noo tey mooy suma gëm-gëm te ci loolu laa nekk benn élection bi ñu ñu bàyyi ñu dem benn élection bi ñu makki Sall bàyyi ñu dem cent quarante communes la ñu dem mu bloqué ñu ci quatre vingt douze ñu am deux cent vingt deux mille voix. yow leader bi. yow leader bi. waaw bu la neexee ah, yow leader bi. Ah, bu la ah, neexee rek non non yow. waaw <laughs> ñeneen ña booloo ñeneen ña booloo. ñeneen ña booloo lu ñu important leader bi non ma ne ma ne c'est important leader bi aussi dafa capital c'est important non non ma ne. 222 000 voix yi ñu am pour te dire que c'est le leader fépp fi ñu gañe woon Benno Bokk Yaakaar jël leen bi ñu delluwaatee ci élection législative dañ leen a dumawaat Pape Bougane du politicien yéene bi ma am dafa sincère et suma xol dafa dafa laab benn yoon bi ñu Macky Sall bàyyi ñu dem élection cent quarante commune la ñu dem am deux cent vingt deux mille voix Dakar gii région de Dakar trente trois communes la dem sur cinquante six ñoo jël troisième avec soixante seize mille voix Guèye mii toog Parcelles Assainies xoolal lam fa am. feneen ak feneen ak feneen ak feneen ñu boole ko mille voix la ñu am. PDS mii nga xam ne mu ngi fi depuis 1974 ñun ñoo ko raw Dakar la région de Dakar ñun ñoo ko raw. première fois mouvement dem ci élection gagné six mairies mouvement am deux cent vingt deux mille voix Macky Sall moo la gën a xam ne poids wu gëm sa bopp moom moo la ko gën a xam moo tax musul nangu ñu bokk ci élection normalement tey jii nag lañu gën a taxaw tey jii lañu gën a organiser wu nee naa la nekk ci président tout de suite nekkul loo xam ne dama naan faw mu am léegi léegi léegi léegi bu amul sama bakkan bi jaral na ma ko déedéet dama bokk ci ñi nga xam ne dañu jàpp ne Sénégal dafa war a transformer wu dafa war a changé pour sa doom sa avenir u doom ëllëg moo tax may xar suma tànk tubéy di liggéey pour loolu kon képp koo xam ne mën nañu bokk ci liggéey bi non boobu awma problème boobu pap et ci loolu rek laa nekk d'accord donc encore une fois ba ci ba ci ba ci système bi dàqoo leen euh, par exemple ci ànd ak ñoom liggéey dans l'avenir loolu bañoo ko quand même man comme compétence lay wut ah compétence xam nga xam nga xam nga bu ma nekkee man waaw fa ñuy décider je te donne un exemple banaal tey Sénégal corps de contrôle li ñu yor moo mooy corps de contrôle yi France am pourtant France fonctionnaire sañu fa nekk milliardaire boo ko defee ñu rëq sa ndigg pourquoi parce que France président ba dooleem dañu ko encadré mais loolu xëyul xëy sotti France de France xëyul xëy am démocratie ak république bi mu am nii. waaw mais dafa am xam nga ni am na fu mu jaar. dafa am ay nit yu ko impulsé. yu ah ko loolu loolu aussi c'est important. waaw mais dama ko xoolee. di nga xam ni mais mais Bougane <laughs> loolu li ma lay wax nii xam ko xam nga ni euh, euh, France xëyul xëy am démocratie bi mu am. xëyul xëy am république mu am am na fu mu jaar. garab xam nañ ko garab li ma gëm ah. man mooy ci kaw lay fekkante. Sénégal démocratie bu mature la ñu am. gouvernance aajuwul ci at yooy def ci état bon gouvernance ak transparence aajuwul ci ay at yooy def mhm. volonté politique la loolu dëgg la loolu dëgg am ay fonctionnaires milliardaires loolu dëgg la amul France loolu dëgg la parce que corps de contrôle bi nekk France bu defee liggéey moom si boppam moom contrôleur bi dafa am pouvoir pour déclencher procédure judiciaire mhm. ñun fii président moo ci teg concom nee na moo tax nga am ay fonctionnaires milliardaires moo tax ñu naan la toogal sa biir kër bul génn di jël xaalisu Covid di ko rocci di dem banque di récupérer cent millions par jour di def ci seen poche. ñooñu tey ñoo am sañ-sañu jàkkaarlook sénégalais yi naan non ñoom dañu bëgg nekk suñu président Abdoulaye Diouf Sarr ngeen wax fonctionnaire nekk milliardaire ci réew mi non ma ne fonctionnaire nekk. mais Bougane pourquoi bu ma la laajee doo ma wax. non ma ne man maa lay laaj aussi. fonctionnaire nekk milliardaire ci réew mi. taxaw di laaj réew mi. amul usine amul dara roppat dompat ak randal alalu réew mi ba pare ñëw am fitu jàkkaarlook sénégalais yi naan leen non dama leen bëgg a jiite non sénégalais yi am nañ fu de pap les sénégalais la am nañu fulla et l'électeur sénégalais est en avance sur les politiciens sénégalais donc moo tax ma ne la ce pays a besoin de relecteur de perspective et loolu ay nit ñu bees jeunesse bi ñoo bëgg yoral seen bopp réew mi ay màggat du ñu toog ci seen roq am soixante-dix-huit ans quatre-vingt-deux ans ne ñooy décider pour sa avenir yow politiciens yi ma lay wax ne ay milliardaires lañu mosuñoo liggéeyloo ñetti nit ci réew mi yow entrepreneur nga yaa ngi liggéeyloo ay nit ci réew mi. tout à fait mhm. d'accord. et pourtant yow mënoo amu amuloo milliard. ñoom ñu nekk ci alalu réew mi di lekk alalu réew mi ne ñoom am nañu sañ-sañu bokk ci ñi war a jiite réew mi alors gis nga il faut ñu respecter sénégalais et cette jeunesse bi jug taxaw. benn objectif rek la am la transformation de ce pays et dama gëm ne encore une fois transformation bi ma la doon wax léegi du rek loo xam ne ci làmmiñ lay am mhm. ay nit ñoo jóg porté ko mhm. bàyyi lépp de ne ñoom li leen intéressé mooy naka lañ mun a def pour transformer Sénégal wax naa la ko léegi Pape mhm. ñoo ëpp alal France France 76 millions de personnes lañu ñun ñuy 17 millions de personnes France boo fa toogee amoo liggéey di français danañ la jox maccaat weer bu dee nga téye ñun Sénégal mënaluñ dara suñu bopp. mais ñu ngi jéem de. non xam xam nga ne xam nga ne ñu ngi non mais mais xam nga mais non Bougane xam nga ne ñu ngi jéem. waa léegi waa léegi xam nga man nee naa dama bëgg ñuy waxtaan. waaw. te bu ñuy waxtaan nañu waxtaan ci xam-xam. acca. Euh, ma jox la benn exemple. bourse de sécurité alimentaire bi ngay dégg nii da koy xeeb. koo xam ne da koy da ngay xeeb par exemple ku toog deful dara weer dee ñu yëkkati benn quarante cinq mille wala cinquante mille jox la ko. non ñetti weer. mais non mais ak lu mu mën a doon. ñetti mu toog ñu yëkkati ko jox la ko. mais loolu bu ko xeeb. wala ki nga koy jox loolu yow boo ko xeebee ki nga koy jox moom. Ah, xeeb ko non non xeebu ki ñu koy jox de xeebalu ma ko de dama gis ne ki nga jox quarante cinq mille mun na am quatre cent cinquante mille pour boppam man jox man du ma joxe xaalis Pape man je suis un man job laay joxe man du ma joxe xaalis non mais boo mënee joxe xaalis joxe job itam loolu la loolu mais loolu loolu loolu mais loolu. xam nga ki ngay jox xaalis ndimbal la non xam nga xam nga da nga ni yow da nga ni job ngay joxe. Ah, non dama ne mais ki nga xam ni mën nga ko jox mën nga jox ñii job jox ñii xaalis. gis nga ki ngay jox xaalis loxo bi tàllal loxo ba cay teg moo ko gën. non loolu c'est relatif aussi. non li ma li ma la non non loolu loolu mais xam nga non mais loolu moom c'est relatif. quoi loolu moom non non non euh, nañ ci bañ a taxaw loolu moom c'est relatif wax dëgg yàlla. Euh, ma ne. waaw loolu moom c'est loolu moom. li ma li ma li ma wax. dama ne loxo bi tàllal. loxo ba cay teg moo ko gën. ka jox sa sang la. ñi ngay dimbali bu leen dimbali fexeel ñu mën a nappal seen bopp man loolu mooy suma philosophie. nanguwuma nga jox nit ki vingt cinq mille ñetti weer yu nekk baykat bi ngay jox vingt cinq mille ñetti weer yu nekk milliard millionnaire la war a nekk PSE bii phase une bi ak phase deux bu ñu ko defoon ni ñu ko waxee. mais yow yaa ma jox léegi exemple France. waaw mais am na ñu fa nekk nekk ci difficulté yooyu RSA la xaw ma ñu leen koy jox chaque fin du mois. waaw ñu ngi leen koy jox. mais loolu mais ñooñu. mais ki ñu koy jox est def na lu ko gënal nekkul ci lu ko gënal bu doon sagom day liggéey am li muy def ci poosam. man yéenewu ma jox nit ñi ndimbal dama yéene nit ñi mënal seen bopp. pap non loolu yéene la. waaw non bokkul ak jëf ji. waaw non jëf bi. yéene bi ñëpp am nañ ko. jëf jëf ji la ñuy wax. waaw jëf bi nag. waaw il faut nga nekk fa ñuy décider pour def ko pour ñi ñi gis au moins am na ñoo xam ne am na lu ñu liggéey teg ci seen bët ñi ñi gis gis nga Sénégal ñaari mbir a am da ngay wax ba bokk wala nga jëf ba bokk fii Sénégal ñiy wax ba bokk la ñuy bàyyi xel mais ñiy jëf ba bokk mosuñoo nangu jóg. la preuve un entrepreneur bu jógee mais dañ naan ko yow lu tax nga jóg pour pourquoi xanaa xamunoo ne état day dal ci sa kaw man bu ma mesurer woon conséquence yi nga xam ne dal na ci sama kaw xëy na xëy na bàyyi naa yàgg na mais li may def du pour man li may def pour suñuy njaboot ëllëg la pour sa doom ëllëg la pour sa sët ëllëg la pour que mu mun a nekk ci réew moo xam ne réew moomu am na alal ngir mun a demal boppam le Sénégal a tout Pape dama la wax sànq ne la dañu tollootul foo xam ne dangay nekk ci impôt ak ci douane ngir doxal réew nekkatuñu foofu tey jii pétrole bi ñuy wax ne mu ngi ñëw senegal ñoom dañu jàpp ne pétrole bii ñëw xaalis bi moo am njariñ man gisuma xaalis bi man dama gis ne ressource yooyu ñu ciy am muy gaz bi war nañu mën a installer ay centrale yoo xam ne dina produire électricité ba tey woyafal bi ngay jënd. Bougane xam nga ni gis nañ loolu aussi da nga yaakaar ni ñoom gisuñu li ngay wax nii. gisuñu ko. ah d'accord pour yow ñoom xaalis bi rek la ñu gis quoi mais gisuñu ko. d'accord bàyyi ma woon la ne gisuñu ko. Mhm.